perspective yi nag mooy li nga xam ne moom la ñu wax léegi mooy continuer liggéey boobu PACASEN rural PACASEN rural ñetti téeméeri milliards ak juróom fukk ñaar la ñeent ñeenti téeméer ak ak juróom ñaar fukk ak juróom benn collectivité territoriale ñoo koy am mooy ñi amul woon ci PACASEN euh, bu njëkk bi et particulièrement les départements bi yoon dañ ciy bokk ci des mooy ñu continuer fiscalité locale département yi amul woon ñu ñu ñu wutal leen fiscalité propre euh, continuer li nga xamante ni mooy restructurer le fonds de dotation tamit fexe projet yi nga xamante ni moom la ñu war a def xam ngeen mbënn mi bi muy amee Kër Massar daaw président Macky Sall bi mu fa demee fukki fan ak juróom-ñaar ci septembre ne woon na gouvernement bi dina waajal mbënn mi di ñëw eh bien ADM agence développement municipal mi ngi ciy def liggéey bi am solo actuellement ak yeneen projet yoo xam ni bare na yoo xam ni war nañ cee liggéey en perspective ci at mi nga xam ni moom la ñu jëm muy atu mi nekk nii muy 2021 en mode fast track malgré la pandémie à la Covid 19 jërëjëf. moom lañuy ñuy wooyee euh, revue annuelle ndax euh, loolu lu lu lu lu lu obligatoire la mën nañ ko wax ci ministère bu nekk ci at mi da nga war a def sa revue pour seet li ngeen jot a liggéey ci at mi passé. ak lan ngeen ubbi comme perspective ci at mii di ñëw bu ko ministère yëpp defee nag dafay am lu ñu wooyee revue annuelle conjointe RAC boo xam ne ministère de l' di du de la coopération moo koy organiser en tenant compte de toutes les revues ñun nag def nañu suñu bos tey fii ci ministère bi nga xam ne moom la président Macky Sall dénk muy collectivité territoriale ci loolu li ñu gis mooy ci atum 2020 malgré que pandémie bi la ñu nekk parce que ñu ñëpp xam nañ ni 2020 caractéristique am mooy pandémie Covid 19. lu bëree bëree bëre impacté na ko mais malgré cela am nañu ay avancées yu ñu am ci domaine yu bëree bare bi njëkk mooy mën nañu fonction publique locale defoon nañu ay tournée ci région yi implémentant implémenté nañ ko maanaam saxal nañ ko te commencé na ndax maire yu bëre ak président conseil départemental nga xam ñoom ñooy employeurs yi régulariser nañu ay agents yu bëree bëre ñaareel bi état civil projet bu am solo liggéey nañ ci muy numérisation digitalisation te loolu permettre nañu ñuy def ay ay jéego yu am solo beneen bi nga xamante ni tamit des euh, gis nañ ko mooy euh, koom-koom koppar yi waroon jóge ci nguur gi dem ci collectivités yi euh, collectivités yi eh, jot nañ ko lu lu bees mooy dañ ko jot avant fin mars 2020 loolu nag lu am solo la te koppar yi yokku na yokk bu am solo lu mat presque 60 milliards yoo xam ne dem na ci sans compter contribution économique locale sans compter PACASEN urbain téeméeri milliards ak fanweer si juróomi at te collectivités yi ñu ngi koy jot ak yeneen ak yeneen bi ci des mooy tamit li nga xamante ni mooy liggéey bi xam ni suñuy agence yi ñu ngi ko yor ci wàllu Sénégal bu mel ni ADM am na liggéey bu am solo bu mu yor boo demee Ndar ñu ngay liggéey ci wàllu géej gi yokku di avancé ñu ngay liggéey ci relogement boo demee fi nga xamante ni mooy PNDL ñoom it da ngay defar ay piste loolu lépp ay acquis la yu ñu am maintenant le le plan national d' aménagement du territoire tamit loolu am solo la acquis la ndax Sénégal mosul am aménagement territoire